commission sociale bokk nag ci gën solo yi nga xam ne nag ñooy taxawu liggéey bi ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké seenub liggéey nag jëm ci taxawu gi nga xam ne war nañu ko amal jagleel ko ñi nga xam ne ñoo loru ci mbënn mi gannaaw bu ñu leen ràññatlee ba noppi. seen liggéey mooy saytu ñi nga xam ne jafe am nañu jafe-jafe ci biir ndox mi. ak ban xeetu jafe-jafe lañ am ñu jéem a xool itam nan la ñuy ba ñu mën a am ndimbal yi su dee loo xam ne ci loxo commission commission bu mu loxoy commission bu mu nekk ñu fexe ba mu àgg ci su fekkee ki soxla pompe ñu fexe ba mu àgg ci euh, commission bi nga xam ne mooy commission technique bi su dee ku soxla leneen itam ci wàllu ndimbal itam ñu recensé ñëpp ba mu pare ñu xool ñi nga xam ne kii euh, sauf nga xam ne dañoo soxlaa génn nga xam ne fi ñu a mënatuñ faa nekk dañoo soxla ñu recasé leen ci yeneen i kër ba ñu nekk ñu mën faa nekk ba seen wala yu mel noonu ñooñu moom dañ leen di jël en charge ci saasa kër yi nga xam ne jot nañ koo amagun ñu joxe ko ci ñooñu ñu mën fa dëkk. beneen commission aju ci wàllug technique ñoom nag dañuy indi ay xalaat ci ni nga xam ne noonu lañu ñu war a taxawoo way loro yi ci jumtukaay yi waaye tamit ci xeetu ndimbal yi nga xam ne moom la leen war a jagleel ak dayo bi. mooy liggéeyu commission technique bi comme baat bi ni muy tekki mooy di indi ay apport Euh, ay ay apport scientifique apport spécifique yu jëm ci wàllu euh, conseil technique ak it di joxe orientation yi nga xam ne ci la ñu war a jaar ba liggéey ndax dafa mel ne euh, lu jëm ci pompage yi commission boobu ñoo ko yor ñoom ñooy coordonné ak di joxe équipe yi ñuy dem ci terrain bi di def pompage ndox yi pour jëriñ na ko ci kër yi waaye bërëb yi nga xam ne tamit fi la ñu war a dalal nit ñi saytu ko ba mu mel na mu war a mel loolu ci commission boobu la nekk. administration mu mel ni nag mënu ci ñàkk ñoom ñi le nag ñooy saytu lépp loo xam ne rek yeneen commission yi dañu koy amal waaye tamit di leen yombalal liggéey bi ci lépp loo xam ne rek dañu koy soxla ci wàllu jumtukaay rawatina nag fiche yi nga xam ne moom la ñu jëfandikoo ci seenub liggéey ngir nag bu ñu noppee ñu mën leen ci xayma. ñun commission administration nag suñu rôle mooy coordonner def benn coaching d'abord. fexe ba jàppale commission yëpp yi ñu taxaw ñu noosu ñu fonctionnel ñu defal leen ay outils yu ñuy liggéeyee ay fiches yoo nga xam ne ci dañuy def recensement yi def ci ay fiches matière pour lii dugg wala lii war a génn waaye également di def reporting bi fexe ba li ñuy def kilifa yi di ci jot. tegaale ci en place aussi benn bureau ba nga xam ne bureau euh, contrôle des achats la parce que sëriñ bi 200 millions la joxe sas. murid yëpp ñu diwal ci seen euh, addiya addiya jooju lañ bëgg dara bañ cee mooy. gannaaw commission yi nag am na ab comité de pilotage boo xamee ni nag jëmmal nañu ko ñoom ñi nag ñooy saytu liggéey bi nga xam ne nag commission yi dañu koy amal laataa nag ñu ko yéegal comité directeur bi nga xam ne ñoom ñoo yor décision yi gannaaw kilifteefu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké. bis bu set ñeneen di liggéey loolu di xam li liggéey mooy lan mooy tax ñu mën Euh, buste moo tax ñu mën di joyanti moo tax waxtu wu nekk fu ñu ko bëgg jëmale ñu jëmale ko fa ci gaawaay ci yitte ak ci pas-pas kon compte rendu bu quotidien ak bu permanent la du loo xam ne da ngay xaar ne damay def deux jours trois jours def compte rendu déedéet des compte rendu yoo xam ne yu permanent la euh, kilifa yi ko seeq ñoom ñëpp ay hommes d'expérience lañ ils son rompus à la tâche ñoo xam ne lu taxaw seen kanam efficacité ak efficience la ñuy bëgg te loolu dañ ko mën. commission communication ñoom itam ci liggéey bi lañu bokk di fësal waaye tamit di yaatal xibaar yi ci ndimbal li nga xam nag mingi dugg ak lii génn waaye tamit fexe ba transparence am ci mbir mi. am na itam commission bu ñu dénk lépp lu aju ci wàllu ko finance ñoom ñi nag ñooy saytu koppar yi.